am réew soo ko bëggee développé il faut nga investir ci njàng mi am réew soo bëggee nit ñu jóge ci pauvreté il faut nga investir ci njàng mi ndax njàng plus-value la xam-xam valeur ajoutée la ci doomu aadama moo tax les objectifs du développement durable objectif numéro un xam-xam ndax xam-xam mooy tax nit jóge ci pauvreté nga xool fii ci Sénégal aussi le plan Sénégal émergent bi nga xamante ni ci lañuy tënk maanaam nu ñuy war a doxale réew mi pour jëlee ko ci ndóol yóbbu ko ci beneen lendemain bu gën a baax boo xoolee axe bi mi ngi ko orienté sur le capital humain de le capital humain comme ni ñu ko waxee mën nañ né bo delloo ci référence indice de développement humain da ngay gis né axe ba ci ñëk moy santé wér-gu-yaram ndax nit bu wërul il est improductif quel que soit ses moyens quel que soit donc son savoir-faire donc il est improductif mais ba ci top moy jang kon fo xol rek dañuy gis jang importance biko adina bi jox biko ñëpp jox motax nak ñun ñu fas yéene lépp loo xamante ni mën nañ ko ñu def ko ci jàng ak jàngale. président commission éducation ak équipe am ñu def benn plaidoyer wax li nga xamante moom lañu bëgg ci école yi bokk nañ ay réhabilitation entreprise yi dañoo gën a xarañante gën a gaawante wante buñ sañoon yëpp ay parendoo ndax école école yëpp ñoo yam dignité ñoo yam dayo ci municipalité bi wante ñu gis na loolu dayul nañu benn risographie buy permettre directeurs yi ak l'ensemble des acteurs de l'éducation pour que bu ñu traité te seen ay examen ba pare ñu mën am possibilité mën koo tiire ci sécurité ndax gis ngeen fuite yi am ci examen yi ak yooyu bi ñuy wut risographie ñoom ci option boo xam ne ndax risographie da ci am yoo xamante ni mën nga tiire pare boo fàttee master bi keneen ku ñëw day tiire amaat copie loolu moo tax fuite yi daan am mais ñu wut risographie woon boo programme nombre de copies su matee rek automatiquement daf master bi dafay dafay détérioré wu beneen placé wu yooyu yëpp ci cadre ñu recherche développement lañ ko teg rek pour que di gën a góorgóorlu pour gën leen a jàppale mën nañ ne euh, daanaka quatre-vingt pour cent élèves yi bénéficié wu infrastructure yi ak fourniture ay élèves Touba lañ ñun nag wax nañu ak le maire de Touba yoon yooni yoon mais sëriñ bi euh, sensibiliser naa ko ci rafetlu na jox na ndigal pour que mën ak maire Touba ñu waxtaan ci. mais am na leneen lu dikkaat loo xamante ni ñun ñaar ñëpp nous serons obligés de travailler ensemble pour mën a bénéficier ci beneen rubrique PACASEN ëmpalewu leen nit at mu ne ci wàllu éducation ba tey dañ jël cinq millions jàppale ko daara yi ndax daara yi tamit jàngalekat yi ci système bi lañ bopp ne serait-ce ñoom ñu jënd ci lañ bëgg dajale waxtaan xam ne boole nañ leen ci liggéey bi pour ñu mën a sentir seen bopp ba ñu jàpp nañ leen exclure te ñuy gën a avancer yàlla dana dogal dañ dem ba lépp daje benn yoon lépp ci kilifteefu l'inspecteur ci loolu it am na ay édicule yoo xamante ni dans le cadre de la RSE ak euh, euh, benn société euh, RC buy defar assainissement Touba am nañu ko boo waxtaan ci ak monsieur l'inspecteur ñoom ci benn réunion def dispatching ba école yi nga xam soxla woon nañ ay éducule defal nañ leen pour mën leen accompagner loolu lépp it toujours ci cadre recherche développement la bu ñu sañoon suñ école yi des écoles de référence lañ pour ñu produire ay élèves de référence au niveau à l'échelle nationale. après le magal dañuy lancer un grand projet pour maintenir des soirs d'éducation. éducation muy une grande salle multifonctionnelle avec une grande bibliothèque au bénéfice exclusif de l'éducation donc beaucoup de financement c'est au niveau du trésor donc pour commencer euh, concevoir projet nous avons fait ko euh, conseil communal de la jeunesse bi nekkoon salle une grande bibliothèque avec des bureaux donc nous avons pour que élèves ait accès à la lecture parce que tamit jàng tout le faaw nga am looy jànge ndax bu ñu yemee rek ci ci école bi wante wala ñu yem ci internet bi rek donc loolu day des moo tax loolu it c'est un grand projet bon commune bi jël na ko fas ko yéene ànd ak yéen ñëpp ñu mën cee liggéey